mbooleem boy kàngami xel yi seeni xel di xalam njariñ xamees nañu ne njariñ laa ngi fii ci Gninguène TV gii ju xikam la guy bal mbalem fànni xam-xam yi ngir yaatal xam-xam ci kaddu gu leer xam-xam bu sell def leen Gninguène TV muy seen moomeel abonné leen ci seen bi ngir di jot lépp lu ngeen yittewoo bés cloche notification bi ngir di jot sa tànneef ci saa yu sottee Gninguène TV service commercial 77 814 19 25 ba tey 76 276 84 84 ñi ngeen TV géeju xikam la guy ba la xam-xam. di ma xamal lu ma xamul. ci biir si géej xam-xamam. Sëñ Tuubaa Sëñ Musaa Ka da ko wax ni ko taalif na moo di feese ay taax tax xalimaam du juum du jaax am xelam du gàtt du naax du fàtte lëf ci xarnu bi te waxaat moom Sëñ Ka daal di ni. sëriñ bamba du seen màppandoo du seen maas ñëw leen déglu mbind mi borom aras maas mbind mu borom aras maas nag ndax doomu adama mi borom aras bind moo koy corriger déedéet doomu aadama bi borom aras bind yow li nga xam yow ki la bind moo koy maas yow mi nga xam ni nag yow dalaa bind amoo capacité wu mën a corriger Sëriñ Tuubaa wala ngay gàgganti Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nee na anqalu min lawqi ilaahi wal qalam bila waswasatin wala zulam sama mbind maa ngi koy toxalee ca lawxul maxfoo sikki sàkk amu ci jiixi jaaxa amu ci daa di min lawxi rabbi tunqalu mbooleem boy kàngami xel yi seeni xel di xalam njëriñ xamees nañu ne njëriñ laa ngi fii ci Gninguène TV gii ju xikam la guy bal mbalem fànni xam-xam yi ngir yaatal xam-xam ci kaddu gu leer xam-xam bu sell def leen Gninguène TV muy seen moomeel abonné leen ci seen bi ngir di jot lépp lu ngeen yittewoo bés cloche notification bi ngir di jot sa tànneef ci saa yu sottee Gninguène TV service commercial 77 814 19 25 ba tey 76 276 84 84 Gninguène TV géeju xikam la guy bala xam-xam di ma xamal lu ma xamul ci biir si géej gi